أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أنشها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يعذرون ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بركب خادم رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa daaray Sifaa u Sudoor man la sëñ Sidi Maxtaar xuma jaalibatul maraaxib Touba porte parole Sifaa u Sudoor bu Touba maa ngi siyaare mboolem ko am ni morom nekk ci biir daara ji jël siyaare bu góor ñi teg ci loxo sëriñ Modou Thiaré mu tegoon ci loxo mboolem ko am ni morom nekk ci biir daara ji jël siyaare bu soxna yi teg ko ci soxna maam Asawaalo mu tegoon ci loxo mboolem soxna yi di jaajëfal baax sëriñ Xaarim Sow mu fekk ci buntu bi mu andi lu am solo ci thème bi ñu tànnoon tey muy diggante jullit bi ak alxuraan. macha allah muy thème bu am solo muy thème bu mat a waxtaane it di thème boo xam ne it waxtu wu nekk fàttalee ko day day war ñu ngi jaajëfal mbokk yi nga xam ni ñoo tànn thème boobu te daara ji di doxee noonu waxtu wu nekk ñu indi ay thèmes yu am solo ngir bëgg di ci fàttalante waaye di ci jariñante waaye di ci jariñu ñu fas yéene barkeelu sun kam kattan ngir xataayu waxtu wi e, waaye lépp loo xam ne jotal na ko ci ay kàddu rek ñëw ak bari xëy na ñu doy loo ko rek incha allah bismillahi barke borom tuba alquranul karim nag day waxi sun borom subhanahu wa taala muy wax ju wér joo xam ni jullit bu rek dafa war a fonk ndax wax yàlla ci ab jaam jaam bi war na koo fonk ndax amul jenn wax ju ko féete kaw doy na sëkk li sun borom waxal boppam innahu la quranun karimun fi kitaabin maknuunin laa yamassuhu illa al mutahharun li sun borom subhanahu wa taala wax ni alquran di wax ju tedd la yoo xam ni moom ci boppam xam na ni ku tedd la kenn amul sañ-sañu sax di laal wax jooju lu dul da ngaa làpp kon day wane ni alquran wax ju sell la ju barkeel ju tedd ju mata a bàyyi xel alquran it doon loo xam ne jàpp gi dafa war képp koo xam ne ab jullit nga jàpp alquran da laa war ndax loolu day wane ni jullit bii kat lim ak sunu borom subhanahu wa taala ndax jullit jaayante ak yàlla waaye li li firndeel sunu jaayante nag mooy ñu fonk waxi yàlla ji mooy alquran ndax kenn ku ne xam na ni bu demee ci alquran dañ cay fekk suñu borom di wax ni inna allaha astara min almuminina anfusahum wa amwala bi anna lahumul janna yuqaatiloona fi sabilillahi fa yaqtuloona wa yuqtaloona waxdan alayhi haqqan waaye liy firndeel jaayante googu nga xam ne moom la suñu war a wax ni moom la jullit yi jaayanteeg moom nag ngir jënde ko àjjana li koy firndeel mooy fonk alquran a jàpp alquranu karim subhanahu wa taala dana ràññee ñi nga xam ni eh, ñoo jaayante mu jaayante gu wér ci ñu nangoo jàpp alquran ndax sun borom subhanahu wa taxala mi wax ni inna allazina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjoona tijaaratan lan tabuura kon nan xam ne ñi yàlla nangu seenu jaayante nag ñi yàlla nangu seenu jaayante mooy ñi nga xam ne jàpp nan alquran te fonk alquran te téye alquranu karim ñooñu sun borom wax na ni yarjoona tijaaratan lan tabuura nangu na jaayante gin jaayante moom kon ndeke jàpp alxuraan ak fonk alxuraan dana tegtale ne yow mi yàlla nangu na sa jaayante yàlla nangu na sa jaayante boo boole la jullit yi nga xam ñoo jaayante woon ak moom subhanahu wa taala te bi bu demee ca xasida gii muy wax jaawartu wax na ci ne moom yàlla nangu na ak kon te gis ngeen digganteem ak téere bii di alxuraan waxaaniyal baaxi bihi suboora tijaarati ladayhi lan taboora kon loolu li mu tekki mooy képp koo xam ne fonk alxuraan képp koo xam ne jàpp nga alxuraan képp koo xam ne doyloo nga kon day tektale ni yalla nangu na sa jaayante fonk alquran it ak japp dan dana génne nit ci ak lendam di tabal ci ak leer ndax nurun ala yahdi Allah li nur man yasha kep ku la gëna a fonk alquran mo lay gëna a sori ak lendam waaye mo lay gëna a ci ak leer ndax alquran ñepp ko xam ni leer la go xamni kep ku taxo ak mom waxtu nek dalay leeralal fi ngay jaar kon lolu firnde ci ni ku la gëna fonk alquran rek dana la gëna sori ak lendam di la gëna di gëna tabbi ci ak leer mom alquran karim moom alquran moomu it euh, bokk na ci li nga xam ni képp koo xam ni am na taw feexi jàpp ko yàlla mën na koo musal ci saytaane te yàlla mën na koo musal ci jafe-jafe adduna ndax sun borom mi ngi wax ñi nga xam danoo wan ginnaaw alxuraan nanguwun koo jàpp mi ngi wax ni dunduk adduna gu naqari la ñu am te ëllëg yomal xiyaam bu ndekkee dañu silmax te ëllëg yomal xiyaam ku fa silmaxa doo am doom ju la womat doo am soxna sula la womat doo am wëllëre wu la womat te boobaa da ngay tañax tañax rek ba keroog ngay egg ca bis ba sunu borom di atte ay jàmm te sunu borom nee na wan ginnaaw alxuraan ñàkk ko jàpp ñàkk ko fonk bokk na ci liy waral silmaxa ëllëg waaye bokk na ci liy waral dunduk àdduna gu naqari nga xam ni boo bëggee xaalis doo ko am boo bëggee ak wér doo am boo bëggee wëllëre wu baax doo ko am buntu boo song rek buntu day tëje ñàkk fonk alxuraan ak ñàpp ak ak ñàkk jàpp alxuraan loolu bokk na ci li koy waral wa mën a enral an zikri fa inna lahu mahisatan danka wa naasuruhu yawmal qiyaamati ahma loolu day tegtale ni képp koo xam ni wan na ginnaaw alquran rek mbaa wan ginnaaw ñooñ alquran na ko woor ni dund adduna gu naqari lay dund kenn mënut a fexe ba ak dundam neex ndax benn du am jàmm du am barke du am xaalis du am fanu gudd yooyu yëpp ku wan ginnaaw alxuraan yàlla da koy xañ kon ndeke wan ginnaaw alxuraan jafe-jafe rek lay jural nit jafe-jafe bu yaatu le jural nit bismillah way won ginaaw alquran it dana waral nit ñu boole ko ak saytane da xamne buy lek mok saytane ñoy and di lek buy naan mok saytane ñoy and di naan buy teud mok saytane suñu ande. di teud même buy wet ak soxnam ñok saytane ñokoy and même bu ca doom juddo sax genn wàll gi lay yilif genn wàll gi saytane moko yi yilif te saytaane ko ca ter da ndeke loolu wan ginaaw alquran bokku na ci likoy waral euh waman ya'si an zikri rahmani نقيل له سيطانا فهو له خرين كون كيب كو خامني وارنا غيناو القران رك نكو ورني يالا دا نكو بوليك سيطان سو خامني لو تيخالي كو موم با موك تا نييب كو خامنا ني سيطان كيب كو يالا دوخول سديغنت اك موم دانا لا دانا لا واخ لولو ورتا واخ بامو ديف لولو لو ورتا ديف تاي بوبا سيطان مومو مانا لا وما جيملي اك تخيدي دا سون بورون سبحانه وتعالى نانا ان سيطان لكم عدون فتح سو حدوا سيطان سينو نون نين كو جاب ام نون دا دي واخ ني واخون سيطان نيكو na uh, inna xibaari laysa laka alayhim sultaanun illa man ittaba'aka minal xaawin sama dëgg-dëgg jaami maa leen gaaraan mënu ñoom dara kon képp koo xam ne war na ginnaaw alxuraan nag yàlla da koy génne ci dëgg-dëgg jaamam yooyu nga xam ne boobaa du am protest boobaa du mën a mucc boobaa kenn ku ne xam ne ak texee di la koy jural dana day texe day texee di adduna texee di alaxira te loolu wan ginnaaw alxuraan bokk na ci li ko waral wan ginnaaw alxuraan it bokk na ci li nga xam ne dana jural nit képp comme bëgganteel sax bëggante googu du sotti bu amee ja bu amee soxna sax du ca mën a am doom lépp lu mu yor mu yàqu ay yaakaaram di tas am du mën a sotti te loolu wan ginnaaw alquran bokk na ci koy li koy waral nga xam ne jafe-jafe bu mu bu mu dugg rek day ñaan génn ci waaye bu ca génnee tabbiwaat ci beneen jafe bu gën a kawe booba loolu wan ginnaaw alquran bokk na ci li nga xam ne da koy waral kon loolu day tegtale rek ni nit ku nekk na moytoo wan ginnaaw alquran wan ginnaaw alquran dana jural nit ay coow nga xam ni fu mu toll ay coow day bari day xuloo kii di xeex ak kii maanaam nga xam daal ci yooyu ci lay dëkk daanaka wan ginnaaw alxuraan bokk na ci li koy sabab alxuraan moomu nag doon loo xam ni képp ku ko jàpp képp ku ko jàpp dana la womat jëmeli ci ak jub moom alxuraan karim képp ku am tawféexi jàpp ko dalay womat jëmeli ci ak jub inna haasal xuraana yahdi lilati hiya aqoomu suñu borom nee na képp ku jàpp alxuraan dana la womat jëmeli ci ak jub te kenn ku ne xam na ni ab jullit ak njub mooy li am solo ndax suñu borom daa wax ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siraatal mustaqim kon jaamu yàlla gi nu yàlla sant li mu bëgg ci noonu rek mooy ñu jub te jub mooy tax a mucc ndax sëriñ bi daana wax ni alif laam miim sàllika kiraa laa rewi xoddan jooju rek mooy li yàlla yittewoo ci yéen muy baatu xodaan muy jub sëñ Modou Moustapha daana wax ni sëñ Touba ma jur dégg naa ngërëmam waaye man Modou Moustapha li ma doy mooy ak njub alxuraan a jàpp ko dana tax a jub ndax alxuraan képp ku ko jàpp dana la wommat jëmale ci ak njub la wommat jëmale ci ak alxuraan képp ku ko jàpp it te gëm ko yàlla dana la dimbali ci feebar yu baree bari bari na feebar yoo xam ne daal ñu dul jàng alxuraan waaye képp ku jàng alxuraan yàlla dana ci musal ndax suñu borom nee na wa nunazzilu min ma maa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin alxuraan day saafara bépp tawat boo xam dal na doomu aadama te loolu mag ñi xam nañ ci lu baree bari mag ñi gëmoon alxuraan te sukkandiku woon ci xam nañ bu baax taxawaay bi alxuraan te Sëriñ Tuubaa nee na alxuraan mooy ab doctoram alxuraan mooy trésoram alxuraan mooy kontam alxuraan mooy léppam kon loolu day wane ne alxuraan képp koo xam ne sukkandiku la te gëm ko te jàpp ko yow na la wóor ni tawati zahir ak tawati batin lépp alxuraan da koy saafara alxuraan it yërmaane la ñeel ab jaam ndax jafe-jafe bu mën a am rek boo jàngee alxuraan da ngay gis ni jafe-jafe boobu day dañ day dindi ab xol bu tilim ci nit allazina am na war tatmain xulub bi zikrillahi allah bi zikrillahi tatmain xulub day laabal xolub julit te sun borom nee na yawma laa yanfahu maalun wala banuuna illa man atallah bi qalbin zalim ëllëg yawmal qiyaam alal ak leen jariñ waaye xol bu sell képp leen di ku la gën a nangoo jàng alxuraan moo lay gën a laab ab xol moo lay gën a sel ab xol moo lay gën a mën a mucc ëllëg yomal xiyamatul akbar kon alxuraan day dindi tawate xol waaye day dindi tawati yaram waaye alxuraan day dàq day dàq day dàq ak ak di andi am koom waaye alxuraan day dàq ak ràgg di andi ak tonaw kon alxuraan mbokk yi gis ngeen njariñ li nga xam ne am euh, moom alxuraanul karim it euh, doon loo xam ni euh, Janggi gi dawar, war legi gi dafa war ndax huma kana kaana yanfiru kafatan kaafatan falawlaa nafara min kulli firqati minhum taifat li yatafaqahu fi kon jang alquran dafa war waye jangul waye jangi alquran da war waye jàngale alquran da dawar. war ndax moy lo xamni ne bu ñëpp maase won kenn jàngale wuko bepp julit yepp ay am bakkar commerçant bi day am euh ouvrier bi day am bakkar safoor bi safoor bi day am bakkaar moo xam safoor car rapide wala safoor taxi wala lu mu ci mënoon ñëpp ay am bakkaar képp ci ab julli da nga am bakkaar bu ñëpp maase woon kenn jàngalewut alxuraan léegi dafa war waaye bu ko ñenn ñi defee na mu wàcc ñenn ñi waaye ñu ko defut it am na lu leen war ci alxuraan mooy jàpp alxuraan xam ni ëllëg yàlla dana leen laaj seen digganteeg téere bi wa innahu la zikrun lakka wala xawmika wa safa tusaluun kenn ku nekk ëllëg sa responsabilité ci téere bi yàlla dana la ko daaj ndax yow mokkaloon nga ko bindoon ko ba mënoon ko jàngale lan moo tax jàngale ji woo ndax yow eh, amoon nga doom lan moo tax yóbbu woo ko ca daara mu jàng ndax yow yàlla dénkoon na la wërsëg ndax sa wërsëg woow yaa ngi ko doon def ci alquranul karim yow yàlla na la doole ndax sa doole jooju yaa ko doon jeexal ci alquranul karim yow yàlla dénkoon na la xam-xam ndax sa boobu yaa ko doon jeexal ci alquran yàlla dénkoon na la am xel sax xel moom ndax jëmale woon nga ko ci alquranul karim kon kenn ku nekk yàlla dana ko laaj digganteem ak alquranul karim responsabilité bi mu ci amee woon ndax matale woon na ki nga xam ne jàng na ba mokkal yor daara kooku jaanam wàcc na waaye ka nga xam ne yor na doomam war koo war ko yóbbu daara bu ko yóbbut am na bàkkaar ka nga xam ne am na alal def ci alxuraan bu ko ci defut am na bàkkaar ki nga xam ne am na kaddu te bu waxee ni jàppale daara bu waxut am na bàkkaar ki nga xam ne am na doole tama na a liggéeyal alxuraan moo xam muy soxna si moo xam muy góor jigéen ba ci mag bu jàppalewut alxuraan na ko woor ni am na bakaar kon wa innahu la zikrun lak wa li qawmika wa safa tusalun kenn ku nekk am na responsabilité ci alquran te ëllëg yàlla dana ko laaj digganteem ak alquran karim donoom mooy alquranu karim ak hadis ak waxi gaañu baax ñi sunnil hadisa wal furuha kal kitab hani lesi namtanoho minal matab kon doonal sëñ tubaa mooy alquran ak hadis ak waxi gaañu baax ñi kon képp kuy doon sëñ tubaa doo ko doon ci ay kër yu rafet doo ko doon ci ay 4-4 doo ko doon ci ay compte banque waaye sëriñ bi yaa ngi koy doon ne ci alquran ñi fonke won alquran ñi fonke woon ñooñ alquran li ko ñooñ alquran jaraloon sëriñ Touba day mos naa defarlu ab gàtt wax kenn ci njaboot ni ko joxal ma ko sama waa kër mu commencé séddale ci waa kër ngeen xam sëriñ bi woo ko ñoom mu ne ko bu ma nee la sama waa kër ñooñ alquran laa lay wax te wax na ni ñooñ yàlla ci kaw suuf mooy ñooñ waa ahlu alquran yonente bi nee na ñi gën ci kaw suuf mooy ñi xam ba noppi di xam le xayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu sëriñ bi daan wax ni ndaw lu mokkal alquran it man sëriñ Touba xooma sikkam te ko xam sikkam bu ma ko wax kon loolu li tekki mooy nit ku nekk war naa fonk alquran ndax sëriñ Touba daa fonkoon alquran fonkoon ñooñ alquran dëkk bu mu mos a sanc la waral mu sanc ko mooy jàng ak jàngale alxuraan a tax mu sanc wàcc xalufu dax ban maskana taxalumi wa mawdihaat fikrati wa tafahumi képp ku alxuraan mos a nekk ci ab dënnam it daw la liggéey loolu liggéeyum naaj muy liggéey bu metti kon loolu day tegtale sëriñ bi ni mu fonke woon alxuraan nee na alxuraan mooy kitaabu bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa uxra minal karbi sëriñ Tuubaa nee na alxuraan mooy téere bi nga xam ne moo lay génne ci moo lay moo lay moo lay tàbbal ci yërmande téere bi yërmande mooy alxuraan téere bi nga xam moo lay génn ci njàqare adduna njàqare al njàqare alaxira mooy alxuraan karim kon kitaab bihi narjo minallahi rahmatan wa narjo bihi dunya waxra minal karbi kon mooy téere boo xam ne képp ku takkoo moom da nga mucc ci njàqare adduna mucc ci njàqare alaxira loolu mooy alxuraan karim kon alxuraan rek mooy li mën a teqale nit ki ak njàqare adduna ak njàqare alaxira waaye wan ko ginnaaw it mooy tàbbal nit ci njàqare adduna ak njàqare kon gis ngeen sëriñ bi digganteem ak alquranul karim ni mu fonke woon alquran ak ni mu fonke woon ñooñ alquranul karim fu mu mos a nekk it lu mu gàtt gàtt ñaar fukki nit ak juróom ñett yu wattu alquran ñooy sës ci moom nga xam ne waxtu wu nekk buñ ko bëggee gis gis ko lu mu tabja tabja tabje bu yégee ko alquran bu mun mënta génn ca jamono boobu dana wax ñu dalal ko fu baax seen lekk yi gën a baax fekk saa fekk néeg yi gën a baax lal yi gën a baax ñu dalal ci ñooñ alquran moom la defoon muy wéttalamit moom cheikhul xadim fu mu a nekk alxuraan moo nekk wéttalam yaa wartullaaha bi kitaab illaa duxulee janna nee na alxuraan laa def sama wéttal ba keroog may tàbbi àjjana kitaabu rabbi kaana li wa kuntu lahu walila bi sàkkan sama dund gépp jeexal naa ko ci nekkal alxuraan karim moo tax fu sëriñ bi mos a nekk alxuraan ma nga ca wetam wax na ni ñetti kol la sëriñ Tuubaa daan kolo kol goo gis ne kaminu alxuraan la cay def ba noppi bokk kaminu alxuraan nga xam ne jëmmi sëriñ Tuubaa foog mu sa seen muy dem xamal mi ngi ànd ak ñeenti kaminu bokk te kamil bi nekk ab dënn moo Cheikhul kon gis ngeen Sëñ Tuubaa ni mu fonke ak ni ko alxuraan jaraloon moom Cheikhul Xadim képp ku mës a bind ab kaamil andil ko dana la jox loo xam ne nit dana bàyyi ba nawet ba jeex ta bu jaayee dugubam jaay gertem jaay am ngooñam du ca am lu ni toll nga xam ne bari na ñoo xam ne liñ daan liggéey mooy bind alxuraan di ko andil Cheikhul Xadim ndax kenn ku ne xam na ni digganteem ak alxuraan karim daana lal yi gën a rafet darab yi gën a rafet parfum yi gën a neex alquran la daa jël teg ko ci kaw lal yooyu jël parfum yi di ko xëpp daan ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalil wa xam ne kunta tabibi yow alquran de yoway sama soppe yoway sama xarit yoway sama wëllëre yoway sama wéttal moo cheikhul xadim alquran moomu sa nekk léppi Serigne Touba bëgg gi ko bëgg ak fonk gi mu ko fonk nag ba bi mu liggéeyal yonentam liggéey bi gën a rëy alquran na def muy wéttalam rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa asafil bari xëy na adoru alquran da jël def ko muy wéttal moo cheikhul yoonu géej gi li mu yàgg yàgg foo xoolee sëñ Tuubaa mi ngeek alxuraan karim lu taw mosa mett jëmmam mën naa tooy ay yére mën naa waaye jëmmi alxuraan dawu tooy moom Cheikhul Xadim fonk gim ko fonk ak bàyyi xel gim ko bàyyi xel nag moo waral yàlla rafaatale ko alxuraan mu ni malakan alxuraan a tamlikan yedum kon képp ku bëgg sëñ Tuubaa war ngaa bëgg alxuraan war ngaa fonk alxuraan euh, moom alxuraanul karim it euh, doon loo xam ni euh, jàng gi daa war jàngale gi dafa war ndax wa maa kaana al-mu'minuuna liyanfiroo kaafatan falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifat li yatafaqqahu fi diini kon jàng alquran dafa war waaye jàngul waaye jàngi alquran daa war waaye jàngale alquran yi daa war ndax mooy loo xam ne bu ñëpp maase woon kenn jàngale wu ko bépp jullit yëpp ay am bàkkaar commerçant bi day am bàkkaar euh, ouvrier bi day am bàkkaar safoor bi safoor bi day am bàkkaar moo xam safoor car rapide wala safoor taxi wala lu mu ci mënoon ñëpp a am bàkkaar képp ku ab julli da nga am bàkkaar bu ñëpp maase woon kenn jàngalewut alxuraan rek ñëpp ay am kon day tegtale ni jàngale gi dafa war waaye bu ko ñenn ñi defee na mu wàcc ñenn ñi waaye ñu ko defut it am na lu leen war ci mooy jàpp alxuraan xam ni ëllëg yàlla dana leen laaj seen digganteeg téere bi wa innahu la zikrun lakka wa li qawmika wa sawfa tusaluun kenn ku nekk ëllëg sa responsabilité ci téere bi yàlla dana la ko daaj ndax yow mokkaloon nga ko bindoon ko ba mënoon ko jàngale lan moo tax jàngale ji woo ko ndax yow euh, amoon nga doom lan moo tax yóbbu woo ko ca daara mu jàng ndax yow yàlla dénkoon na la wërsëg ndax sa wërsëg woow yaa ngi ko doon def ci alquranul karim yow yàlla dénkoon na la doole ndax sa doole jooju yaa ngi ci doon jeexal ci alquranul karim yow yàlla na la xam ndax sa xam boobu yaa ko doon jeexal ci alquran yàlla dénkoon na la am xel sa xel moom ndax jëmale woon nga ko ci alquranul karim kon kenn ku nekk yàlla dana ko laaj digganteem ak alquranul karim responsabilité bi mu ci amee woon ndax matale woon na ko ki nga xam ne jàng na ba mokkal yor daara kooku jaanam wàcc na waaye ka nga xam ne yor na doomam war koo war ko yóbbu daara bu ko yóbbut am na bàkkaar ka nga xam ne am na alal war def ci alxuraan bu ko ci defut am na bàkkaar ki nga xam ne am na kaddu te bu waxee ñu jàppale daara bu waxut am na bàkkaar ki nga xam ne am na doole te mën a liggéeyal alxuraan moo xamuy soxna si moo xam muy góor jigéen ba ci mag bu jàppalewut alxuraan na ko woor ni am na bàkkaar kon wa innahu la zikrun lak wa li qawmika wa safa tusalun kenn ku nekk am na responsabilité ci alquran te ëllëg yàlla dana ko laaj digganteem ak alquran kër jëmmi alquran moom yi nag daa war ci bépp jullit mu di ko jàng heure bu xëy lum gàtt-gàtt donte ñaari isib faqara oo maa tay sa min alquran la suñu borom wax waaye sàggante ta weesu jullit boo xam ni amul kaamilub alquran taman am naa ci na jullit yoo xam ne tey ji ku defoon recensement na ne ay dëkk ci dëkk bu tedd bi sax kaamilu alquran amul seen i kër te seen kër tabax na ba mel ni pale loolu sàggante al sàggante ak alxuraan ak wan ginnaaw alxuraan mun ko weesu bari na kër yoo xam ne boo fa duggoon kër ga amul suuf dan koo karoo kaw ak suuf waaye boo fa laajoon joon bu alxuraan amut taman demoon naa ci kër gu nekk jannatul maxwa ba ma laajee kaamil bu alxuraan amut ci kër gi lan ma wax te kër ga amul suuf kër gan danda lan ma abbalee kaamil bu alxuraanu karim te kaamil boobu leer na man kaw ko sax jàngu ci ndax maa ngi gis foo yi yi tampaloo kon day wane ni eh, bari na ñoo xam ne amul alxuraan dem naa Mbàkke ba walit kër goo xam ne ba ma fa duggee di laaj alxuraan ñaari isbi alxuraan xam ma sa bis ma leen ma andil ab kamilu alxuraan amul ci kër googa te la fa nekk ay néeg mat na fukki nekk ak ñaar te amul kamilu alxuraan karim te loolu boo ko doon topp mbokk yi lu yaatoo yaatu la loolu nag bokku ci fonk alxuraan bokku ci jàpp alxuraan ndax Serigne Touba de lépp lu waaye mos yëkkati di ko jox tegal foofu rek la lay wax alxuraan képp la ni daan yëkkati teg ko ci loxom cheikhul Xadiim mu nanguur ko ci ñaar loxom daan ko yaa kitaabal karim anta habib wa khalil wa xabla kunta tabibi Cheikh Abdoul Ahad nee na moom gi moom alxuraan ci malakanil quraan na tam ñaana am na ku mos a yëkkati kaamilu alxuraan teg ko ci loxob Seexul Xadiim nee na ubbeegu ko sax lim nekk sax liñ ko muur muréegu ko waaye bi nga ko tegee ci dënnam daa wax borom kaamil ni ko sa kaamil wow na lool waaye fa farixal kasabtum de suur baqar képp nga fàtte sadda kon li mu tegtal mooy sëriñ bi mooy borom alxuraan ku bëgg sëriñ Tuubaa nag da ngay bëgg alalam ndax sëriñ Tuubaa ñëpp naan dañ ko bëgg waaye lii firndeel bëgg gi mooy jàpp alxuraan fonk alxuraan wóolu alxuraan doyloo alxuraan tey jàng alxuraanu karim mbokk yi tey fonk sëriñ daara te fonk daara ndax sëñ tubaa doomi daara la waajuram ab sëriñ daara la maamam soxna daara la waajuram bu jigéen ci daara la mu soxna Mariam Bousso soxna Assawalo lim jàngale téeméeri at ak ñeent fukki manki ñaar la mokkale ca daaram kenn xamul nu toll sëriñ Mamar Anta Sali ñaata nit ñoo génne ci daaram ab université mag la yoroon sëriñ Touba Kazaliga soxna Mariama Bousso ganee jamono ci daara màggee ci daara tàbbiwaat ci biir daara liggéeyal fa yàlla ba am ki nga xam ne mooy yilif alquranu karim mu Cheikhul Xadim kon mbokk yi loolu day tegtale ni képp ku bëgg cheikhul xadim war nga fonk alquran karim nan fonkat alquran nan fonkat alquran nan fonkat alquran képp aju ci moom jox na la ndigal ngay jàng alquran donte ñaari isib walaw salasatan la wax walaw donte ñett isib bok képp ku aju ci moom tay neena na képp ku bëgg am ngeerumul yàlla it da ngay jàng alquran qul fa man yurid rahman falyusbir an tilawati alquran kon ngeerumul yàlla kenn munu ko am ci lu nga nangoo jàng alquran karim te ngërëmul yàlla mbokk yi moom la ku ne di sàkku saxaaba yi moo waroon ñu doon joxe seen bakkan di jël seen alal di ko ca teg ngërëmul yàlla rek la doon sàkku sëriñ Tuubaa mii ngërëmul yàlla rek la doon sàkku saxaaba yi ngërëmul yàlla rek la doon sàkku ngërëmul yàlla nag fonk alquranul karim a jàpp alquran ak téye alquran ak nangu jàng alquran ak jëfe alquran bokk na ci li koy maye ndax war yu doon mi na lay ak wër saalum wala façon asim kon mbokk yi nañ gën a bàyyiwaat xel alquranul karim nañ gën a fonkaat alquran karim te alquran day képp koo xam ni li naan jote mooy jëkk joote képp koo xam ne da ngaa wan ginnaaw alxuraan boo faatu jëru ngay jàngaloo alxuraan ndax na la wóor ni boo jàngaloo alxuraan it alxuraan jooje du la bari na ñoo xam ne amul soxla ci alxuraan amul soxla ci ñooñ alxuraan amul soxla ci téereb alxuraan te tey jii bis buñ faatoo dañuy wax ni nan woo yi daar ba mu ànd ak ay dongaam ñëw ci baas bi jàngal ko alxuraan ngir yàlla jéggal ko yàlla yërëm ko na ko wóor ni buñ ko ko defee it alxuraan joojee du ko xett bi ndax koo xam ne da ngay dund muy dund jote woo dara bis faatoo nag ñu ñu jël ko di la ko jàngal na la woor ni loola bu nekkul fitna ci yow it du nekk njariñ ci kon jote moo jëkk joote kon nit ki dund yàlla waxoon la ni jàppal alxuraan te fonk alxuraan am téere bi te di ko jàng lu mu gàtt gàtt boo xëyee na nga ko yër te am alxuraan amoo alxuraan jëngoo alxuraan say doom nga jël leen yóbbu leen feneen ñuy jàng nga nga nga jëngu jënguloo wa leen alxuraan ñu woo ab sëriñ daara mu lay jàngal alxuraan na la wóor ni loola doola la jariñ dara dara dara dara du jariñ dara kon képp ku wan ginnaaw alxuraan it bëgg alxuraan ramm ko alxuraan du ko ramm képp ku wan ginnaaw alxuraan it bëgg alxuraan ramm ak njabootam alxuraan ram ramm ak njabootam képp ku wan ginnaaw alxuraan it bëgg alxuraan xettali ko adduna ak alaxira alxuraan du ko xettali adduna ak alaxira ndax yàlla moo wax ni ku ko wan ginnaaw dunduk adduna gu naqari nga am te ëllëg yomal xeex bu ñëpp dekkee di gis yow da ngay dekki te da ngay silmax te yàlla nee na dama lay booleeg saytaane soo xam ni moo lay nekk sa gidd doo am kilifa saytaan mooy nekk sa kilifa di la tàmba ci ay tooxi doona ëllëg yaag saytaan ngeen bokk benn barab bu ngeen nekk muy sawar kon mbokk yi nan fonkaat alxuraan nan jàppaat alxuraan nan wóoluwaat alxuraan nan doyloowaat alxuraan waaye nan fonkaat daara nan fonkaat dongay daara waaye nan fonkaat ñoñ daara xam ne lu ci de defi seexul xadim nga ko defal lu ci waay def seexul xadim nga ko defal lu ci waay def ko defal maa ngi wàcc foofu samay kàddu ngir sama ñàkk jot wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu